jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen kóoluteef ak ànd ak ngeen ànd ak les programme de la 7TV télé bi ñu niroo ba noppi di ñu dajale ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax bu ko defee rek ngeen dal jàmm ñu tàmbali ñaareelu pàccu matinal lu Sénégal euh, fas yéene ko door ak jotaayu xibaaru suba si dañ ci ànd ak Grégoire Ngom Grégoire maa ngi lay nuyu. jële fay bu baax Aïcha naka suba si mbàyyee nga am jàmm sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah ma bàyyi la nga daal di wax li nga xamante ni moo gën a fës ci boppu xibaar yi tey ci suba si bokk na ci ay cas lu jëm ci mbas mi di Covid 19 mel ni nag bàyyeekoogul fii ci réew ko Sénégal boobaak léegi seetlu gi leen la nag ca boru aéroport international Blaise Diagne jumtuwaay ba teg nañu ko fa ginnaaw mbirum màkka bi nga xam ne daal ñu ngi toogoon di ko waxtaanee jamono ji jàppale nag ni eh, kilifa yi rek féete ci wàll wile ñoom nag ñu ngi woo askan wi ñu ànd rek ak dal te gën a jël seen ak matuwaay. beneen na ko ca wàllu lëmb askanu Sénégal bokk na ci coowal mburu mile ak wàññi teef ga jàppale nag ne wàññi nañ ko ba ci fanweeri dërëm waaye nag uh, kuréel gi ëmb mboolem mëñee yi ñoom jamono ji ne nañ loolee furaas duñu ko dégg jaat na nag ne jamono ji nii nageen ni tey daañu tàmbali ab uh, gerew maanaam nag bàyyi rek production ba jëm ci wàllu ko farine bi nageen ni tey ji muy nag loo xamante rek jàpp nañ ne kilifa yi fow ñu toog daal di rek amalaat ab waxtaan ngir saytuwaat lépp loo xam ne uh, moom mooy indi jàmm ak dal ci biir marché bi ay ponk yango mbokk yi ñoo ko déggandoo ponk yaa ngoog ñaar la boo leen taxirloo léegi léegi ñu ànd ak Grégoire Ngom mu daal di faram-fàcce li ci xibaar yi. gërëm leen sant leen bu a baax ci ànd bi ak kóolute gi mbas mi di Covid 19 génnoon réew ko Sénégal loole nag bokk na ci li nga xam ne rek moom la ñu seetlu ginnaaw aju Makka bile loole a la tax tamit njiital ay AIBD yeewu di yeete moom Cheikh Bamba Dièye jàpp rek ne jamono ji ni bu ñu ko xaymaa rek askan yi war nañu gën a wattu ci jamono ji ñu teew lay kàddoo. taxawaayu ministre bi tey jii weesu lu dul rek fegu moo gën faju wax nit ñi li xew ci àddina yee ñoom tamit. ñu jël disposition yoo xamee ne ànd seeg état bi pour que mu bañ a am ngaañ ndax comme ni mu ko waxee Covid mos ta jógee ci biir réew mi mais comme daje gu rëy la ñuy jóge boo xamee ne ay million ngi doomu aadama fa daje foog ñu waaj ko préparer ko loolu moo indi dispositif bii yëpp ñuy ñaan ojaat yi bu ñu ñibbee seen kër ñu bañ a fàtte ni bërëbu jàngoro lañ jógee te waaj lépp loo xamee ni dina leen musal ba ñu bañ ko yaatal su fekkente ni yëg nañu lenn xeetu tàngoor wala ay saxatak yu demee noonu ci seen bopp boo ko defee ñu jege structure de santé yi mais lii moom ñun ñu nekk ci aéroport bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ministère de la santé avant que mbir yi di tàmbali ñu ngi woon ak ñun bi mu nekkee ci biir ñu nekk ak ñun ci fin bi tey ji ministre bi ci boppam moo ñëw pour taxaw xool matuwaay yi fu ñu taxaw dispositif bi et je pense que ni jàpp na ni ay équipe am nekk nañ ci ànd ak ñi nekk acteur ci biir plateforme bi pour ñu taxaw ujaaj ji naka mu gën a rafetee leneen ci bile jotaay xibaar bokk na ci rek coowal mburu mi mel ni nag pënd ba wureegu ca bu ñu koy xayma rek jamono ji ginnaaw nag dogal bi nga xam ne daal moom moo tukkee ca conseil national de la consommation bi nga xam ne amal nañu ko ca yu bés bi ñu weesu jàppale nag ne mbirum farine bile am na rek njëg yoo xam ne jot nañu ko ci tënk ba tax na jamono ji rek kuréel gi ëmb mbooleem meññ ak industriel du Sénégal daal di xam ne ne ni tey yaa ñu dakkal rek defar loole di wàllug farine nga bu ñu koy xam seen ak production lañu ko. ko jagleel lu mel nag ne ab dogal boo xamante ne ni fësal nañu ko daal di ko dëxëñ ci ab communiqué la ñu xam ne daal moom may jamono ji yokkute fukk blebe ak ñàkkub leer rek ci lépp loo xam ne moom moo jëm ci nañuy tege ay compensation financière bokk na nag ci li nga xamante ni daal ñoo ngi koy naqarlu ñoom yi lekk mëñee des tamit di xam ne ni ah, ci seen naka liggéey daal daañu ci amee jafe-jafe ci wàllu ko koom ndaxte bëgguñu jaay te duñu ci gis seen naka bopp des na ni nañ di ko xamle wutali loolee eh, di Bandeñ eh, nekk nag ab gox boo xam ne daal mu nga ca boru ñaay tey jii bu ñu koy xayma jafe-jafe am na fa ñi rek eh, lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ko yoon ak yeneen yu ni mel mu di nag coow loo xam ne daal amina ay njeexital ci dundinu ko askan wi nga xam ne ñoo nga ca bor boobu ñu ànd ceeg góoram ci yoonu bandeñ bii mhm. jóge ngumba jaag bandeñ ba ba jaagu faal jaagi daagu faal ba cepp ci dëkk yi ma mën a lim loolu képp dong mooy soxla bi nga xam ne bu ko askanu mbawoor buñ ko fajalee askanu mbawoor mel na ne fajal nañu askanu mbawoor jàngooro yëpp buñ doon seet ñi fi am xëy li ci ëpp yoon wee la ko yoon woo leen ko jox kenn fanaanatul ngumba ndax ñàkk lu la yóbbu mhm. waaye yoon wi bu taxawoon li fi nekk ci ci mbaar ëpp na ñaar fukk presque ëpp na fanweer xaw ma nu mu toll waaye ñoom ñëpp bu boobaa di mën a dem di ñëw oto yi gën a yàgg ah dégg ngeen ñu ne fii ci ñaay bi nga xam ne ñu fa sunu digganteeg ñaay bi matul ñaar fukki kilomètre ñu ne loo jëlee ci mbayum sobleeg pombiteer lu ci njuko jublu téeméer bu nekk juróom benn fukk ya ba juróom ñaari fukk foofu lañ ko jëlee waaye bu ñu ko jëlee dañu obligé war a jaar moom Louga wala war a jaar moom Lompul loolu nag bu amoon fii la ñuy jaar ci yoon wi fu ñu bëgg a dem ñu dem fa. aw autorité yees bi li njëkk li ñu leen di gën a xaar mooy ñu godrone piste bi ñu xam ne ñu ngi koy leen de Géewul à Saare Daaw biir 73 14 villages bu maa ne la 23 villages la ñu des ya nga xam ne ak plus ay amu xam ñaar fukki dëkk ak ñett la ñu des ñu amagul courant. mi nga ok ci ko jaajëfal lu baax a baax moom goro Mbodj mi taataan seen kàddu mbokk yi ñu du jëmale ci beneen ak ponk ñel na jamono ji bi nga xam ne ñoom ñoo féete fii ci réew ko senegal tey aar rek loolee di intérêt Palestine ñoom wàcc nañ nag ci mbedd mi damal euh, fii ab dox boo xam ne daal la leen taxoon a jóg bokk na ci daal wax la leen naqari ci lépp loo xam ne moom mooy fitna ga juddu ca boobeeleeg réew Matar Bari ci leeral bokk na ci manifestation yu bëri yi nga xam ne coordination sénégalaise pour la cause palestinienne amal na ko ñu def ko nekk ab randonnée pédestre boo xam ni sénégale yu bëri teewe nañ ko rawatina ay acteurs yu bokk ci société civile li ko sabab nag moo di dañoo bëgg ñu dakkal massacre yi nga xam ne ñu ngi koy def ca Palestine. dàgg nañu jóg tey dañu gën a jóg encore une fois parce que gis nañ ne boobu ba léegi ñu ngi bàyyi Israël muy def lu ko neex ci Palestine donc loolu il faut que àdduna bi yëpp jog ci taxaw si. waaye ñax yi nag li ñuy laaj moo ñu dakkal rey yi nga xam ne ñoo ngi koy def sa Gaza te ñu jàppee ko crime contre l'humanité yi. guerre dafa am ay loi doo nekk ci guerre rek di rajaxe hôpital. di yàq ay ay ay di rey ay xale rey ay jigéen yoo xam ne n'est-ce pas yoruñu fetal xeexuñu loolu c'est des crimes de guerre te dafa nekk ci mandat cour pénale internationale ko ñu ngi procureur bi très rapidement ñu jox ko ndigal pour que mu lancer aujourd'hui des poursuites contre Netanyahou et ce ministre de la défense. ñu ngi woo itam réew yu mel ni Sénégal ñu dakkal bépp relation ak Israël. même ñoo xam ne duñu sax ay jullit ñu ngi jóg di wax ci affaire Palestine boo demee États-Unis yu bëri ñu ngi def même chose nañ def acte fort acte fort mu ngi commencé ci. daal di dakkal bépp relation diplomatique ak Israël. doomi Palestine yi nga xam ne ñoo ngi yeewoo Sénégal ñu ngi rafetlu bu baax bile mobilisation te di am yaakaar ni dina gën a dooleel sensibilisation bi. cette conscience mondiale qui s'éveille. lu àdduna bi yëpp jug di fësal seen jàppandal askanu Palestine dina am njeexital te dina tax guerre bi jeex. tout d'abord à stopper cette guerre atroce. je suis contente dama am mbégte ndax gis naa ni askan wi ñu ngi gën di yeewu ci mbir mi. li ñu war a amal rek mooy yokk dox ñaxtu yi ngir ñu gën leen mën a sensibiliser. bi mu tàmbali ak léegi rek guerre bi ci diggante Palestine ak Israël am na 261 jours bilan bi toll ci 7500 doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakken am ci 86000 yoo xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu. comme on dit après la pluie vient le beau temps la guerre commence oui mais la paix reviendra alors ne vous en faites pas parce que nous serons là pour vous pour vous tendre la Matar bari lu dul jàmm jàmm ko gën mbokk yi noonu sax la ñuy def barastiku ci wàllu ko tàggat yaram euro 2024 Niklas Füllkrug démb daanaka wallu na réew ko Allemagne ci groupe A ba national Mannschaft nag ñoom ñoo ñe eh, mujjee nañu rek tembo ak la nat yi di réew ko Suisse moom eh, mi yëngu nag ca bokk ko Borussia Dortmund mi daal di sax dugg ci ñaareelu ko pàcc bi ah, moom moo daal di dugal ginnaaw nag ba leen Suisse daal di a jiital loola daal waral jamono ji eh, ñoom réew ko Suisse daal di rek jàll ci ñaareelu ko ba ci beneen jongante bi am naka ca boru ko groupe ba jàpp leen daal ni ci njeexital la sax la ko Hongrie daal di rek euh, gagné ginnaaw ab but boo xam ne dugal nañu ko ca temps additionnel ba seen diggante ak réew ko Écosse naataangooy Dominique Soboslay ñoom nag ah, noonee rek la ñu daal di def jamono ji mënees nañu rek am yaakaar ci loole di ab place ko meilleur troisième tey ji nag programme ba jàppale nag ni ni la tëddi Espagne dana jannoo ak Albanie bu ñu ca jógee daañu nag jogante diggante Croatie ak Italie mu mel ni daal ñoom ñaar ñoo ku ca am ndam da nga jëli ñaareelu ko place bu boobee lekk groupe Albanie itam digganteem ak la rek yaakaar bi lekk place su ko meilleur euh, troisième ci euh, loolee balaa ñu sax dugg ci mbir moomee jàppale nag ni ci mbirum Copa America tam yëf ya ñu ngay wéy bu baax a baax jàppale nag ni negeen ni démb États-Unis mi dalal bi lekk compétition moom am na ndam lu am solo digganteem ak Bolivie Christian Pulisic ak Floren Balogun ñoom ñoo dugal ñaari bit ci am ca boobeek rek euh, jongante ñoom nag daal di rek def jéego bu rëy ca wet ga Uruguay daal di tamit gagné ñooñu. di waa Panama ñetti bal ci benn amuñ ca woon benn jafe-jafe buñ koy xayma nag jamono ji Seleção bu Vinicius Junior ñoom waa Brésil tey ji daal daañu euh, football bu ñu ca euh, jóge waaye nag laata euh, ñoom ñi nga xam ne daal ñoom ñooy Colombie ñoom ñoo koy tàmbali bu fukki waxtu ci guddi jote ñoom daañu jannoo ak réewuk Paraguay mi ngoog mbokk yi kon loolu rek moom moo fi jotaru si jotaayu xibaar jaajëfal leen rek bu baax a baax ci ànd bekkoolute bi Aïcha xibaar yi buur jërëjëf Grégoire ñu jaajëfal la bu baax a baax xibaar yi am na solo xanaa nga des ak ñun ñu utale tuyénekaay yi daal di koy gën a yaatal xool ñoom itam li nu xëy fësal tey ah, ci altine gi léegi lay doon mbokk yi bu bàkk bi noppee ñu dikkat ci plateau bi juróom-ñetti waxtu yu toftal fukki simili ak benn daal dinay jot autolot yéenekaay yi ànd ca Grégoire Gomme Grégoire ban yéenekaay la ñuy tàmbale tey Aïcha réew mi la ñu koy tàmbalee waxtaane li réew mi yëpp di coow bokk na ci coowal mburu mile wàññi teef day am ndeginite la ñu koy tàmbali ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy meññee nee na ñoo furaas daal di xëddeen duñu ko dégg coow nag am na ci farine bile jafe-jafe la ah, bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu réew mi bu ñu koy xayma nag ñàkk déggoo la kott ci loolee ñeel wàllu ko njëg ya jàpp leen sax na fi ñu toll nii ñoom ñooy la ñu xam ne daal moom mooy mbiru ko production ba daañu ko dakkal ndeginite manqué ñaar téeméer la rek mooy xamante ne nii daanaka wàññi nañ ko ca te loole duñu ko rek daal di financé ñoom mëñee daal daal di xam ne ne mënuñu nekk rek di jaay te duñu ca gis seen ak bopp ba tax na nag loole bokk na ci dogal yi nga xam ne jël nañu ko ngir rek am euh, saafara ci seen ak jafe-jafe l'info yi moom ci cooloole loole nee na ñoom nag ña ngay diirante mbagg ak nguur ak Sénégal bu ñu koy xayma ñoom yi lekk mëñee nag jàpp nañ daal ne régime bile ak la mu leen bëgg a def jamono ji arrangé wu leen ba tax na daal ñu ngi sàkku ci ñoom ab waxtaan bu ko defee daal ku nekk daal di gis boppam ndaxte nag li nga xam ne daal moom mooy TVA ba maanaam taxe ya nga xam ne daal ñu ngi ko cay fay bokk na ci loo xam ne tax na nag ñoom ñooñu ñëpp ñu daal di taxaw fëgg seen dënn rek waxtaane li nga xam ne moom moo leen ca naqari ak la leen fas yéene gaañ ci coowal la lu ni mel la antenne yéenekaay moom ci loole daal jël na kàddu gi daal di ko jox Alioune Ndoye moom la mu xam ne daal moom jamono ji moom mooy yëf yi daal nuróowul sax ay dogal ndaxte nag nguur gi moom la mu xamle moom mooy nag mbiru ko diwlin gi suukar ba ci wàllug ceeb bokkoon na ci daal loo xam ne nii ñu ngi ko ci doon waxtaane ñoom nag lañ doon xaar moom mooy ay dogal yu am fulla ak fayda waaye daal jamono ji gisuñu ca lenn ba tax na daal jamono ji nee nañ euh, dañ leen di fàttali rek la nga xam ne moom mooy seen taxawaay ci gouvernement bu weesu baak tey ji li nga xam ne moom la ñu nekk di def def bokk na ci euh, lam leen di euh, fàttali ci ëttuk euh, yëglekaay bi addu jëmale ci mbiru ko Vox Populi quotidien mun nañu nag mbas mi di Covid 19 bàyyiwul Sénégal lakal na ko la jël ko huit bokk na ci daal loo xam ne nee nañ tax naw nag mu daal di fësal rek ne dootu na fee dellu si ginnaaw nag aj maka bile bu ñu koy xayma daal diggante ñaar fukk la ak juróom-benn fukk ci téeméer boo jël loole ay kaala yoo xam ne daal gis nañu ko tukkee ci vol yi nga xam ne daal ñoom ñoo fa jóge waaye nag terewul jamono ji rek jëwrin bi gàlloo lépp jëm ci wàllu yaram des jamono ji rek euh, di dalal xelu ko askan wi di xam ne daal ni ay cas am na bu baax a baax bàyyeekoo ca booru ko Màkka ñoom ñëpp ay point yu positif lañ waaye nag jamono ji taxul rek euh, ñu war a yenn suñu ko bopp wala boog loxo di dar gémmiñ la ñu war a def daal moom mooy wattu maanaam nag prévention euh, jëm ci loolee di mesure barrière ya jamono ji daal la xam ne moom mooy syndrome bi mu ngi fii ci cas yi nga xam ne jot nañu ko détecté les échos yéeni kaay moom xëyaat na tamit a teg baaraamam ci ca wàllu ni mel waaye tamit gën a rek addu jëmale ci mbiru ko mëñee yeeg mburu mile nee nañ nag taxawal nañ rek dakkal loole di production bu farine ba communication la ñu wutaleeg le quotidien le quotidien mun nañu déclaration de politique générale ñu ngi koy xànn rek ci limaanu jorun ya di Ousmane Sonko waaye nag am na rek téeméeri hypothèse ya ca daal de lalu la nga xam ne daal mënees na ko def bokk na ci tamit loo xam ne yéenekaay bi xëy na daal daal di ko dëxañ ci xetamu njëkk waaye tamit nee na député yi ñoom bàyyeekoo ñu benn yoon wala boog fàttewuñu rek ne mënees nañu rek wutali juróom-ñaari sage ya Adji Mbergane Kanouté bu eh, Benno Bokk Yaakaar daal nee na Ousmane Sonko moom dana ñëw ndaxte eh, ci ca wala lu ni mel le peuple moom ci loolee la mu def moom mooy naka samp ab laaj ndax ci ab motion de censure la ñu jëm jëmale ko ci Ousmane Sonko bokk na ci laaj ba mu sàmp ndax opposition bi tamit dana ko daaneel beneen naka laaj la boo xam ne jot na ne ko fàng ca mu njëkk nee na nag Ousmane Sonko jamono ji bu ñu xaymaa daal euh, feebar bi nga xam ne jotoon na ko jàmbat jamono ji bokk na ci daal loo xam ne Madiambal Diagne jot na ko sulli di xam ne sax ne Ousmane Sonko moom dana rek euh, taxawaat porté malaat jamono ji nga xam ne sax moom mu ngi fàtte rek ni euh, DPG daal wax na ni loole faw mu taxaw waxtu yu yàgg yoo xam ne daal ne na loolee dana wute lool ak li nga xam ne daal xam na woon na ko ci wàllu ko wér-gu-yaramam loolee daal bokk ci loo xam ne euh, ab feebar la boo xam ne daal bu ñu sukkandikoo ci euh, moom la nga koy euh, dire di dire kook moom tamit ba muy nekk ndaw ba léegi waaye terewul tam muy fàttali tamit ne juróom-ñett fukk ak ñetti député yu Benno Bokk Yaakaar ñoom jamono ji ñu ngi tamit ngooy ci bilek DPG bu premier ministre diggante ay risque ak yeneen yu ni mel le peuple yéenekaay daanaka bàyyiwul dara amadu Ba moom mu nga tey ci ca boru Le qualifié moom ma Macky Sall ak Alliance pour la République jamono ji yéenekaay bi daal seq ak moom waxtaan waaye tamit dellusiwaat ci li nga xam ne euh, moom mooy la mu daal di woon poste mel ni daal Amadou Ba jamono ji taxawaayu ka euh, fippu la taxawee bu ñu koy xayma. direct si ñëw si yéen nag nañu loolee ab euh, vrai faux départ la mel ni daal yëf yi euh, mu nga niroo daal leneen ci tukki yëglekaay bi nee nañ nag euh, li nga xam ne jot na ko def ci ab texte bu mu daal di rek publier ñu tuddee ko nouvelle responsabilité dafa mel ni daal jamono ji loolee la muy nirool du leneen daal lu dul amaat beneen ko taxawaay boo xam ne nii fësalu ci ab engagement bu am solo l'indépendant yi ni moom tey ji xëyaat naka ne fang njabootuk Wade Baye Diack doom ja Karim ak Abdoulaye Wade seen ak diggante njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ndar képp nag coow li jëmal rek ci libéraux yi nga xam ne gisuñu leen ci gouvernement bile moom Bassirou Diomaye fay la muy xamle moom may woon a Karim Wade nag laata moo taxawal app gouvernement ngir waxtaan ak moom ci loole waaye daal la ma ko tontu moom mooy eh, ndimbalu PDS daal amul benn eh, condition Sud Quotidien moom nañu nag ci mbiru ka njiitum réew mi rupture ba ma ngay dox ginnaaw nag ndaje li nga xam ne am na ko diggante ak njiitum réew mu France yéen kaay bi daal desandi tamit di waxtaane la nga xamante ne ni moom moo ruus ca waxtaan wa xëy nag jël kàddu gi jox ko Jean-Luc Bia Jean Bia gi ak ki nga xamante ne ni moom mooy Bakary Domingo Mané nekk ñoo xamante ni daal seen ak xam-xam màcc na lool ci xayma coowal lu li mel la tàggat yaram stade yéene kaay nañu Brésil bu Vinicius Junior dana nag tàmbali euh, Copa America bu une heure du matin jotee na génn ëllëg waaye nag laata loolu rek jàppale nag ni ci mbiru ko euro 2024 mile Espagne moom jël na p ba pare ci groupe fas ni rek euh, yeggali yëf ya digganteem ak Albanie waaye daj dëpp ga ñu ngi koy xaar diggante euh, ñi di waa Italie la Squadra Azzurra ak ñooñee di waa Croatie bu Luka Modric mu mel ni daal jamono jooje ñoom ñaar ku ci am ndam da rek wutali huitième naan bu bile ko compétition Aïcha ana fu wanneen si demu jekk gëtam bokk na ci tey ji ah, la ñu samp ne gi ne ab laaj fii lay ni kaay yëm ak am na solo am na solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire Samba Ngom ñu ngi lay jaajëfal canta ngërëm ñenn jokkoo njal ba ëllëg incha allah incha allah <laughs> merci beaucoup ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Grégoire mbokk yi des leen ak ñun dañuy woyal ah, xibaar yi gën koo yaatal ak li nga xamante ni moo di la revue web léegi lay doon bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi

sant aussi euh, di aussi euh, Kajoor mm. depuis après la fête yow ñu ngi lay soog a gisaat ci plateau bi. waaw waaw. Mm. on m'écrivait sax du may laaj bon pourquoi kii euh, yàlla ah. <laughs> dalal ak jàmm alors la revue web dañ koy tàmbalee Kajoor ak Mimi moom nag li mu bëgg rek mooy ñu annuler amnistie bi nga xamante ni jot président Macky Sall jot na ko fi def. mu ñu dénk wàllu yoon tey jii mu nekk ci euh, nekkoon ci opposition bi euh, ca jamonoy Macky Sall tey nag la mu bëgg mooy boobu lépp euh, amnistie ba ñu voté ci assemblée nationale muy baal lépp loo xam ne jéyal te mu laale woon ci manifestation yi nee na nag loolee warul mën a nekk ginnaaw lu toll ci juróom juróom benni juróom benn fukki nit ñàkk nañu seen bakkan ñuy ay ndaw yoo xam ne ñu doon manifester euh, nee na defuñu dara lu dul manifester ñenn ñi ñu daal leen a euh, tëj kaso ci anam yoo xam ne euh, jaarul yoon loolu yëpp ñu bëgg. xëy rek daal di koy niilal moom nag nee na àndul benn yoon ci loi boobee nga xam ne woote nañ ko moo tax la mu bëgg mooy euh, régime bi fi nekk tey mu fexe rek ba daal di dellu siwaat ne amnistie boobu ñu jël nee na nag faaw euh, ñu daal di euh, doxal dëgg bu fekkee nag kii nga xam ne moo fi nekkoon jiitu réew di yi sàll sax laale na ci yoon daal di def liggéeyam ndax nee na Euh, jàmm balaa ñu koy wax day fekk dëgg euh, am jàmm ci kaw dëgg moom lay euh, lalu loole la kii di Aminata Touré daal di gëm daal nay fàttali sax maanaam diggante Pinochet ak ñi nga xam ne ñoom ñooy argentin yi naka noonu Dadis Camara ca Guinée nga xam ne jamono ji moom it mu ngi jàkkaarloo ak yoon loolee waral nag mu ne Euh, bakkan daanaka dafa fort. Mhm. ba ku ko faat rek faw ñu fexe ba euh, lépp daal di leer. bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci li nga xamante ni moo di production de farine mu mel ni à partir de ce lundi du am. coow li jib na nag ginnaaw ba ñu ko euh, wàññee ba ñu wàññee njëgu mburu bi Pulse Sénégal moom moo ci daal di addu njëg li delluwaat ci cent cinquante ginnaaw bu ko gouvernement Sénégal dogalee. Euh, lundi tey jii nee nañu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine bi fii nee nañu dañuy banque seeni yoxo lu ko waral mooy wàññi bi nga xam ne euh, moom moo tukkee euh, ci conseil national de consommation ba ñu amaloon le 21 juin 2024 bi weesu ba ñu jóge fa daal di euh, wàññi li nga xam ne moom mooy njëgu farine bi jëlee ko ci dix mille deux cent mu tabbi ci quinze mille deux cent mu mel ni lu toll ci quatre mille francs moom la ñu wàññi suñ sukkandiku nag si ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy meññee di liggéey ci wàllu euh, farine. nee nañu wàññi bi ñu wàññi mu ngi euh, tombe ci jamono jo nga xam ne euh, farine bi dafa yokku euh, ci fa ñu koy jéggaane tollu na sax si trois cent euros ci yokkute boo xam ne nee na yokku nañ nee nañu yokk na ko looloo waral nag ñoom ñu ne mënul yokk fee ba noppi ñun fii ñuy wàññi ndax donte sax am na lu ñu teq ci lii di TVA muy mille trois cent cinquante cinq nee nañu loolu rek moom moo génn ci li ñu génn ci TVA yi mu des deux mille six cent quarante cinq yoo xam ne euh, ñoom ñoo ko war a fay donc mu mel ni rek quatre mille yoo xam ne wàññeeku na euh, état bi moom moo ko waroon a euh, feccali su ko defee mu bañ a am njeexital ci ñoom te 4000 yooyu ñu dindi ci njëg li daanaka ñoom ñoo ko war a gàlloo te nee nañu loolu duñu ko mën a dékku ñu wax ci aj màkk gi Kajoor lu toll ci 60 pour cent des pèlerins sénégalais euh, dañu leen confirmer ni que am nañu lii di Covid 19. ñu ngi koy waxtaanee Seneweb nee nañu nag euh, aj bi euh, jëwriñ mi ñu dénk wàllu wérgu yaram moom dafa mu ngi woon sax fële ca ay AIBD ñu def fa nag ay matukaay yu am solo ngir daal leen saytu ginnaaw ba ñu ajee ba noppi. aéroport ay Léopold international Blaise Diagne nag ñoom foofu la leen dalale dar leen defal ay ay test nag coronavirus mu mel ni rekk Euh, bu ñu jëlee ci euh, li nga xam ne moom mooy vol yi ni ñu doon ñëwee euh, saa su ne dina am lu toll ci vingt jàpp soixante pour cent. Mhm. si ujaaj yi nga xam ne dañu indaale li nga xam ne moom mooy mbas feebaru coronavirus looloo waral nag ñu daal di samp ab dispositif ngir daal di leen saytu. daal di leen itam jël en charge. bu ñu desee ba tey ci aj gi Arabie Saoudite ñoom nag ñu ñuy xamal ni que. Euh, ñi génn àddina ci aj màkk gi bari na. bari na euh, France 24 ñoom ñoo koy xamle ndax boobu ba léegi dañu defoon tekki tekkaaral ñoom autorité saoudienne yi ginnaaw ba ñu doon limee ay nit yu ñàkk seen bakkan te tàngoor bi waruloon ko boobu ba léegi nag ñu doon xaar ñoom ñu génn joxe. Euh, nombre officiel boo xam ne moom mooy xayma ñi fa jot a ñàkk seen bakkan nit ki euh, démb nag ñoom mujj nañu génn daadi ci àddu nee nañu nag lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak benn nit ñoom eh, di ñuy ay ujaaj ñoom ñoo ñàkk seen bakkan foofe eh, ca Arabie eh, Saoudite te dara warul koon itam lu dul tàngoor waaye buñ sukkandikoo itam ba léegi ci autorité saoudienne yi nee nañu téeméer boo jël ci lim boobu nee nañu juróom-ñett ak ñett yëpp Euh, daanaka waruñu woon dem aji na maanaam amuñu autorisation pour dem aji su ko defee nag ñoom ñoo demal seen bopp euh, daanaka parcourir ay distance yu sori euh, ci tàngoor bi ak yenn ñàkkum confort ndax ñëpp xam nañ ne aj bi dafay metti te amuñu woon itam benn encadrement mm-hmm. donc loolu la ñu joxe comme explication yu war a tax ba 83 pour cent si ñu ñàkk seen bakkan ñoom ñu daal di koy ñàkk loolu nag moom la euh, daanaka autorité yi daal di xam ne AFP sax moom mu ngi doon euh, lim lu toll ci mille cent mhm. ci ay euh, nit yu ñàkk seen bakkan ginnaaw ba mu jëlee ay information si autorité yi naka noonu si diplomate yi ngir waaye tey nag ñoom bilan bu bi moom mooy mille trois cent une personnes mhm. ñoom ñoo dal di ñàkk seen bakkan te ñu nekkoon ay uujaa jàppaleen nag ci lim boobu mhm. Sénégal mu ci compté ñett ñetti nit la Sénégal ñàkk ci ujaaj yi nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeekoon dem euh, doon aji. merci beaucoup Kajoor ñu jaajëfal euh, bu baax a baax mu nekk lu métti métti mais di leen ma saw itam euh, bu baax a baax permettez-moi ma dalal Amadou mu ngi ci plateau bi Amadou Tall maa ngi lay bu baax fekkaat la ci plateau bi nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau muy Kajoor Cissé aussi Pape Malick ak nos chers téléspectateurs. dalal ak jàmm. sa sa élégance am na solo ah ñu waxtaanee actualité bi waxuma dëgg. ah Kajoor. Ah, très belle chemise. très belle chemise <laughs> ce matin. très belle chemise une ministre bi laay xëccoo ak Ousmane Sonko <laughs> ba mu sotti alors Kajoor. Aminata Touré li mu bëgg mooy ñu annuler li nga xamante ni moo ci euh, loi d'amnistie bi fii Macky Sall def bëgg-bëggam nag la wax waaye man damay laajte ndax loolu mën naa ne. ah bu ñu bu li lu nit def la rek nit mën na koo dindi. <laughs> laa yaakaar lu loxo def rek loxo mën na koo dindi. <laughs> te yaakaar naa ne dina bëri aussi sénégalais yoo xam ne même position bi la ñuy am parce que nag. Mhm. Euh, dafa yomb torop ñu ñu jàll ci leneen. quand on parle de réconciliation day njëkk am justice ba pare. justice ba ku nekk xam fan nga féete léegi bu ñuy baalante ñu baalante et kan mooy baal kan euh, ki ñu tooñ yow mi tooñ wala euh, kan moo xam ku tooñ ak kuy baale c'est-à-dire nga jógi jékki des des des une soixantaine de morts nga ak avec autant de choses détruites au Sénégal euh, beaucoup de de de de, de yoo xam ne on se du jour au lendemain ñu arrêté ko moi je pense que c'est une initiative boo xam ne <laughs> beaucoup de Sénégalais dinañ ci adhérer te mm. il faut que justice soit faite ku ku ku laale yoon da ñu ñu dem ak yow ci yoon lépp leer après bu ñuy jàll ci beneen étape de réconciliation ñu jàll si mais dafay fekk ñu def le point ba pare ci képp koo xam ne situa laale nga ci on situe les responsabilités je pense que c'est c'est le droit le plus absolu des Sénégalais. Euh, Pape ban avis nga am par rapport ak euh, Aminata li mu wax. si euh, abrogation. waaw loi d'amnistie bi. ce que dina difficile moom ñu abroger loi bu. non di la dif bon je ne pense pas que sax ñu encouragé ko parce que bon xam nga affaire bi euh, loi bi ñu bëri ñoo si laal que soit ñu nekk opposition ñoo si bénéficié wu ñu nekk opposition ba tey ñu ñu jiite ñoo xamante ni ñoo nekk si si pouvoir Euh, y aussi tamit des des hommes de tenue à l'intérieur donc mhm. bon dina ma dina ma jaaxal trop que c'est un souhait c'est un vœu <laughs> on l'a longtemps dit ici que bu fekkee dañuy teg yenn loi yi d'habitude il faut que il faut que justice soit faite xam nga ñu xam les responsabilités et, et tout bu fekkee ni euh, da ngay tënku ci droit moom mënoo d'accord que loi d'amnistie bi mënoo ci d'accord parce que loi mhm. d'amnistie bi pour man c'était purement politique moo ko moom moo ko laloon euh, donc weesu nañ ko c'est douloureux xamante ni contour parce que bu fekkee loi d'amnistie boo xam ne dafay viser ay nit ni ay nit bénéficier loolu ça pose problème pour man mhm. loi d'amnistie la moo ko tax a jóg moom mooy pour une réconciliation nationale quand il y a quelque chose ñu bëri bénéficier même fekkee loi d'amnistie boo xam ne dañu ko teg pour mu profiter ma Massamba wala à Mademba. Mhm, bon mhm. ça pose toujours toujours problème quant à révision loi bi nag wala ñu koy abroger bon ça m'étonne franchement ça m'étonnerait. Mhm, voilà ça m'étonnerait. Amatou. waaw liñ ci liñ ci mën a wax rek mooy vraiment. position la boo xam ne sénégalais yëpp partagé nañ ko je pense que ñu bëri bëgg nañ ñu def li nga xam ne moom mooy abrogation li nga xam ne sénégalais mais la plupart des mooy ñi nga xam ne ils étaient des victimes mm-hmm. bëgg nañu ñu ñu def ko cest la population un peu tranchée ci li nga xam ne moom mooy sujet boobu ñenn ñi bëgg nañ ñu def abrogation ñeneen ñi bëgguñu ñu def abrogation mais dans tous les cas li nga xam ne lañ ci mën a wax loi ouais, si si c'est une c'est une c'est une loi tout simplement c'est une loi tout simplement ni ñu ko ni ñu ko jëlee noonu la ñu mën a jëlee beneen beneen loi boo xam ne moom mooy moom mooy revenir sur cette sur cette loi là donc loolu du problème donc parallélisme des formes rek la ñuy indi c'est-à-dire assemblée moo ko jël assemblée mën na ko mën na ko jëlaat pour abroger ko mais non c'est une possibilité boo xam ne maanaam mais après les répercussions ay yoo xam daf si daf siy topp dafay bëri trop trop exemple par exemple tey ji boo bëggoon defaat tey ji le procès de tout ce qui s'est passé en arrière Aïcha ça va être très très très compliqué et ça va prendre

tout le monde tey jii nii ku nekk am nga ci part responsabilité ñu nekkoon ci opposition am nañ ci responsabilité ñu nekkoon parti au pouvoir am nañ ci responsabilité les hommes de tenue am nañ ci responsabilité la responsabilité elle est partagée dina nekk loo xam ne vraiment ça va être très très très difficile pour nous pour nous réaliser ko d'autant plus que le gouvernement en place am na d'autres priorités il a que cinq ans ça va être très compliqué mu jëlaat lool tegaat ko ci ci ndodam alors que vraiment il a des priorités Euh, ñu wax ci mburu mi ndax dafa mel ni wàññi <laughs> wàññiwaat nañ ko bi yoon moom ko bi nañ ko sentir ndax juróom moom boo ko boo boo dajalee ñeenti juróom am nga ñaar fukk donc wàññi bi am na solo <laughs> waaye da l'autre côté nag mu mel nii wàññ bi am na ñu mu arrangé wul ndax nee nañ dootuñu produire farine à partir d'aujourd'hui waaw parce que bu fekkee da nga wàññi. Mhm. Euh, ñoom nee nañu am na tax am na lu ñu génne si si si si taxe bi. Mhm. Euh, pour mu mën a wàññi loolu mais ba léegi nee nañu meunier yi doyul c'est-à-dire que bu fekkee mille francs moom la ñu wàññi si euh, si saaku bi alors que amul subvention. buy buy buy fàtt quatre mille francs yooyu mhm. si si si si gafagaag ñi ñi ñi ñi ñi ñiy defar euh, farine lay lay dugg te ñoom nag loolu la ñu ne mënul nekk mhm. donc je pense que je sais pas comment est-ce que les concertations ont été mhm. ba ba ñu abu à ça euh, bu fekkee dañ ko yàkkamti aussi c'est une erreur de la part du gouvernement parce que dafa am loo xam ne aussi décision boo koy jël boo xam ne doo ko jël unilatéralement ñoom sax ñu ngi koy wax euh, ku ci mel ni le président de maa ngi koy gis ci postam le président de des boulangers euh, mu ne euh, la baisse de de de de du pain ne se décide pas dans par des enfin dans un par des bureaucrates. xam nga populiste dans dans le populisme quelque chose du genre. il a un peu joué sur les mots mais pour dire que ne c'est-à-dire li ñu décidé. Euh, ça n'a pas fait. Euh, suite à des concertations yoo xam ne dafay aboutir à ça loolu moo tax mhm. ma loolu te je pense que c'est une erreur maintenant on va voir la réaction des uns et des autres les réactions ont démarré ñii nee nañu à partir tey du ñu mën a produire parce que ñoom mënuñu endosser euh, baisse boobu noonu nga xam ne dañ ko jol te amul mesure d'accompagnement mhm. mais non mhm. qu'est-ce quelle quelle va être la réaction par rapport à ça on va ñun la population on est là euh, fonde am na am na fu nekk ñun bu ñu gisul pain ñu wari fonde bu ñu gisul pain wari fonde ah loolu loolu loolu yàgg na ci Sénégal waaye yaakaar naa ne bu ñu demee bay wàññi itam euh, ñëpp ci war a gis seen bopp. justement bu population bi gisee boppam. ña nga xamante ni ñooy liggéey farine bi bu ñu gisu seen bopp day gën a metti donc je pense que wàññi bi ñoom sax ñoo ci war a njëkk a gis seen bopp. laata population bi. Euh, kan ci meññee. Euh, waaw. non mais ñoom suñu wàññee parce que dañu ñu gis ne suñu wàññee dañuy perte loolu moom moo tax parce que bu fekkee nga koy jëndee benn prix bi ñu ñëw après wàññi ko. jaayee ko beneen prix boo xamante ne prix de vente bu gën bu gën a moins prix bi nga xam ne moom nga jëndee farine. perte loolu dangay ngay da ngay perte te boo jaay moom. Euh, commerçant boo jaay ay bénéfice ngay xalaat. am ko ci su fekkee amuloo bénéfice dina dina yéeme mais bon euh, heureusement que y a des alternatives yoo xamante ne mën nañu si renvoyer et puis c' est pas une fin en soi le pain. boo ko ñu non je veux dire non mais boo non boo euh, soo demee si dëkk arabe yi. pein moom la ñëpp di dundee Omar El Béchir def na plus de 15 ans Soudan. Mm. mburu moom moo tax ñu ñu ñu ñu population bi génn xam nga je ne pense pas que Sénégal fii nii mburu dina tax ñëpp génn di waddal pouvoir je ne pense pas. Ah, c'est-à-dire boo comparé donc arabe yi pain nu mu fa amee tradition fay boobu beneen beneen culture la quoi. nu mu amee foofu noonu que fii nii je ne pense pas lu ma lu tax ma ne am am na alternative c'est un peu je sais pas moi comparaison peu trivial mais quand wax euh, le mil. xam nga euh, bon am na ñoo xam ne ñuy wax ne mais waa ji lan lay wax ni mil nan lañ ko mën a nan lañ ko mën a ndekkee wala fondé affaire yooyu mais ay alternative la mais pour man alternative bu gën mieux moom mooy ñu basé wu si lu nga xamante ne moom mooy culture blé bi nga xamante ni def nañu ay recherche fii di mhm. y a yoo xamante ne def nañ ko mais les gens je ne sais pas mboo xam amul fond financement wala amul suivi mais peut-être suñ si suñ si toppoon blé bi nga xamante ne à l'extérieur lay jugee pour ñu mën a utiliser lu nga xamante ne moom mooy peut être dañ si mën rabattre nga xamante ne ëllëg suñu nee wàññi mhm. du bu fekkee yow da ngay importer hmm? ah farine bi da nga koy importer donc euh, ñi nga xamante ne ngay fay taxe ak yooyu noonu ñuy ñëw ba bés yàgg teq la lu mat 2000 euh, wala 3000 ça pose ça pose ça pose énorme problème euh, dinañu je ne sais pas moo xam dinañ ko def mais ay am na ay difficultés yoo xamante ne mën nga si jaare jàng si de telle sorte que ba ëllëg du la dal comme le pain par exemple nga xamante ne bon mu ñëwee ñu ngi kaas ne ni gouvernement Kajoor Sud lu mu wax dëgg la gouvernement bi ban taxawaay la da taxawee balaa muy jël décision naan da koy da koy wàññi parce que tamit bon il faut une concertation mm-hmm, mm-hmm. bu bëgg a satisfaire les gens rek wala pression mm-hmm. coup de mu tax nga def loo xamante ne ëllëg da nga koy ba fi mu ne nii par exemple ñoom suñu taxawee dootuñu produire ti aussi tamit bon euh, luy tooy tamit si ñoom si si ñoom lay jógee moo tax balaa ngay jël yéen décisions yi il faut se concerter waxal ñi nga xamante ne ñoom nga war a waxal ba ëllëg décision bu mu ci mënti jëlee yow di nga xam fan ngay taxawee. Mhm. alors coup de pression. jël yenn décision yi dafa mel ni ñu ngi koy commencé nag di taamu ci gouvernement bi nii euh, boo jëlee ci veillu tabaski bi les bus 3D. Euh, li ñu leen envoyé ci biir euh, gaaru routière bi gis nga certes population bi gis na ci seen boppam mais chauffeurs yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci gare routière bi gisuñu ci seen bopp. c'est comme si que fii aussi ñii dañuy gis seen bopp mais ñi nga xamante ni ce sont les vrais acteurs du secteur bu nga xamante ni moom la ñuy jéem a apporter ay solutions ñooñu duñ ci mais il faut dire que sur si affaire boobu noonu bon les chauffeurs il avait da nga doon dem Thiès di fay 2000 tout à fait d'accord mais est-ce <laughs> parce que ku nekk aussi lu la arrangé rek ngay. waaw c'est-à-dire euh, Sénégal bëri na trop trop ay char ba nga xam ne actuellement c'est-à-dire gouvernement bi nga xam ne moo fi moo fi nekk man dama koy féliciter ci li ni mel parce que je pense qu'il faut prendre des actes forts parce que tey jii nii ñi nga gisee Sénégal actuellement donc mun ñu bàyyi Aïcha muy continuer di nekk ci ci li nga xam ne moom mooy laisser-aller c'est-à-dire il y a la population qui est là donc il y a les acteurs du système il y les acteurs des secteurs ñooñu tamit ok aussi dañoo war am patriotisme sur le Sénégal sa à dire munoo nekk ci Sénégal tout simplement nga ne yow li la arrangé rek nga moom ngay def munul nekk c'est-à-dire on est dans un état qui organisé donc il faudra ñu respecter li nga xam ne moom mooy moom mooy les règles donc moo tax ba d'un gouvernement bi nga xam ne moom moo fi nekk c'est-à-dire lay jël man dama ko ci dama ko ci félicité parce que sonn nañ trop c'est-à-dire la population elle est elle est il faudra vraiment que le gouvernement en place jël des mesures fortes donc vraiment pour réglementer li nga xam ne moom mooy def ci tabaski man je salue tout simplement dañ koy saluer parce que tey jii bu fekkoon da ngay jël oto di fay francs ñoom ñu xam ne oto yaa ngi di nelaw donc y des chauffeurs

mooy les acteurs mais li nga xam ne moom mooy régler le coût de la vie chère ici au Sénégal Aïcha c'est la production nationale il faudra il faut il faut il faut ñu am la souveraineté alimentaire il faut ñu produire assez ici au Sénégal bu ñu bëggee tout simplement donc ñu am une réduction de la de la vie chère mais bu ñu defal loolu Aïcha on va jël ci li ngay am na moom mooy ay subvention gis nañ ñu ko fi defoon gis nañ fu mu fu mu mujj cest tout simplement ci ay problème rek lay nekk même dans le court terme maintenant c'est pas c'est pas tenable maintenant les meuniers on les comprend tout simplement parce que tey jii mënoo jënd à perte il faudra ñu jiital concertation mais en en amont il faudra ñu dem vers la production mhm. nationale je pense que loolu la ñu war a dox mhm. je pense que euh, mhm. euh, décision si mburu bi bon déjà ça sort c'est c'est sorti de, de du dans le cadre du conseil euh, national de de la consommation donc il y a une concertation te pourtant conseil boobu noonu meunier yaa ngi mais maintenant est-ce que le meunier wala les meuniers qui étaient présents au conseil là ils étaient d'accord comment ils ont laissé Euh, prendre la décision wala dara loolu noonu yëpp peut-être on aura la chance de les avoir pour xam mais la décision a émané de ce conseil la ba ñu jël décision boobu ñoom nag nee nañu loolu doyul mhm. waaw maintenant quant à, à, à au transport yoo xam ne euh, vraiment moi je salue aussi parce que nous qui sommes de d'ailleurs la mhm. soo waree dem tabaski imaginez le, le prix bu doon dix mille la avant tabaski on le fait à vingt mille sa sa sa kii ñëwagul sa sa sa sa bagage ñëwagul boo naree yóbbu xar prime prime nit bi la xaat bi di fay. Mhm. boo amee yeneen bagage ñu soog a kiiwaat c'était trop ci ay nit yuy dem moom c'est trop c'est exagéré je pense que loolu war nañ ci jël ay mesures mais man fi may waxee par exemple c'est-à-dire genre situation yu mel nii amoon na fi Aïcha sénégalais moo mel noonu xar mi la xar mi rek ok mais Kajoor xaw ma ban année la mais genre situation bu mel nii tabaski amoon na fi mais loolu la ñu defoon gouvernement bi mais dugguñu biir gaar bi dañu jël bis 3D yóbbu ko jëppal comprendre nga ku bëgg dem nga dem jëppal jël bus bu la neex mais tey le fait que ñu dem ba dugg ci biir gaar bi c'est-à-dire ñu ngi empêcher ñële aussi weccet biñ ci wut ñu ñu ñu. am loolu comme ça bu ëllëgee ñoom it dinañ xool nu ñu nu ñuy def ba tee gaar yi dugg kaar yi dugg foofu bus yi dugg foofu. alors on enchaîne justement pour parler de politique ànd ceeg Pape Malick Thiaw yow bu ñu kii woon ci gouvernement bi naa xalaat ban ministère añ la war a. man nañ ma yóbbu assemblée que aw ma. Ah, ah. <laughs> assemblée moom am nga fa am nga fa. place macha allah léegi léegi ñu dikkaat waxtaanee politique ànd ceeg Pape Malick Thiam. biir assemblée moom lu neex lu doy waar alors. actualité politique bi dañ koy tàmbalee ak le maire de Thiès di mhm. Babacar Diop moom nag euh, dafa daal di dissoudre instance yi nga xamante ni ñoo nekk ci parteem waaw FDS euh, les Guelewar moom mooy parti politique bu Babacar Diop démb la ko doon def euh, journée symbolique journée boo xamante ni le 23 juin la 23 juin di rappelé 23 juin 2011 nga xamante ni Abdoulaye Wade dafa bëggoon def benn ticket présidentiel moom nag loolu la wax ne date boobu ci la annoncé loolu donc date bu importante la moom mi nga xamante ne moom mooy diriger FDS Les Guelwaars di diriger tamit euh, fi nga xamante ni moom mooy meeru moom mooy meeru Thiès euh, moom mu ne su tënkoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay idolam ci wàllu politique mooy moom Dia Cheikh Anta Diop euh, lu nga xamante ni loolu la ñuy def moom mooy créer benn parti politique bu bees bu nga xamante ne dina dëppook ñooñu li nga xamante ni moo nekkoon seen idéologie mu ne dafay fondé wu ci tas li nga xamante ne mooy instance su parti bi. Mhm. mu ne reconnaître na ko c'est grave wante loolu day tax parti bi amaat euh, li nga xamante ne moo dee ay instance yu bees fi nga xamante ni moom moo foofu la jëm euh, ñu définiraat ko. Euh, ni nga xamante ni tamit noonu la parti bi tëddee ñu euh, changé ko euh, leneen li nga xamante ni wax na ko mais naam dinañ teg parti bu bees bu bees préparer lu nga xamante ni moom moo di parti bu ñuy teg nga xamante ne nekk parti boo xam dina am représentativité fépp ci fépp ci Sénégal bu ko defee loolu mën nit yu bëri mën leen a wusi ci seen euh, politique bu bees nee nañ nag lu nga xamante ni euh, dégmal nañu ko nee nañ teg benn équipe boo xamante ne équipe bu dynamique euh, bu ñuy waajal dinañu jaay cent mille cartes yoo xamante ne pour ñu bëgg adhéré wu ci parti bi la ñoo xam ne ay adhésion Euh, yoo xamante ne bon ñoo xamante ñu bëgg a ñëw ci biir euh, parti bi militer ku soo mu nekk ay jeunes wala ay jigéen mag ndaw daanaka ñëpp daal ñu ngi leen ñu ngi leen di woo ci biir parti bi loolu Babacar Diop euh, wax mu ne nag lu ci gën a am solo mm-hmm. moom mooy fexe ba ñoom fi ñu jëm Euh, moom moo di échéance prochaine mooy ay élection euh, que ñoom ñoo am ay siège élection législative ñoo am ay siège ci biir assemblée nationale pour mën a représenter lu nga xamante ne moom mooy seen parti politique bu bees waxaguñ nag ban jour la ñuy teg li nga xamante ne euh, moom di moom moo di parti politique bi. très bien Pape lii nag ab laaj la. Mhm. bu ñu samp dañuy laaj ndax kii di Ousmane Sonko premier ministre ndax dina def une déclaration de politique générale. bon classe politique bi daanaka question boobu moom la ñuy laaj depuis semaine bee passé ba tey jii nii am na saa yeneen gaa yoo xamante ni loolu la ñu loolu la ñu xëyee ndax Ousmane Sonko euh, da def déclaration politique générale c'est obligatoire pour ki nga xamante ni moom mooy jiite. gouvernement euh, moom waxoon na ko 5 juin bay weesu ci conseil des ministres mu ne ñu ngi préparé pour def déclaration politique générale ci assemblée nationale ci semaine yi di ñëw wante boobu depuis 5 juin la woon ñu wax rek ni délé bi presque daanaka euh, dara desatu ci ndaxte Ousmane Sonko bu ñu ko falee le 3 euh, juin 3 mhm. juillet ci lay am 3 mois te d'habitude ñi nga xamante ni ñooy premier ministre yi trois mois la ñu am pour def déclaration politique générale ay préalable dafay am balaa ñuy def déclaration politique générale euh, gis nañ ni préalable yooyu euh, que soit bind lettre ay tout loolu loolu amu ci euh, ba nga xamante ni nag ñu bëre nekk ci politique bi diante yooyu benn député di wax ne moom peut-être dafa ragal ak dernier sortie yi nga xamante ni def na ko loolu moo tax bëggul jàkkaarloo ak député yi keneen ne Euh, bu fekkee ne Ousmane Sonko def déclaration politique générale ñoom lañ jël seen ay responsabilité 4 juin bi weesu Cheikh Tidiane Euh, ministre de l' assainissement waxoon na ko nee na Ousmane Sonko pare na pour def déclaration politique générale euh, wane li nga xamante ni moom mooy politique gouvernement bi fu ñu fu ñu tàmbalee ak fan la ñu ak fan la ñuy jëm opposition bi nag ñoom euh, ñu ngi xaarandi député yi nga xamante ni ñoo nekk biir assemblée nationale ñu ne tradition républicaine nag que premier ministre def déclaration politique générale di rappeler rek assemblée nationale. fi mu ne nii ñi nga xamante ni ñoo fa majoritaire ñoom ñooy député opposition bi bon ñu nekkoon au pouvoir de coalition Benno Bokk Yaakaar yi ya yaa y' a deux mois. 82 députés la ñu am euh, léegi nag ñuy xaarandi ñu ne su fekkee ni Ousmane Sonko. Euh, d'ici trois mois yi si trois juillet deful déclaration politique générale ñoom mën nañu saisir ñoo xam ñoo di conseil constitutionnel. mën nañu saisir conseil constitutionnel ñu wax ci leneen. Mhm. banque mondiale mu ngi soutenir le PACASEN à hauteur de 67 milliards de francs CFA. waaw moom mooy dernier dé euh, décaissement bu PACASEN wax ne PACASEN mooy kuréel bu nga xamante ni genre programme la buy sox buy jàppale ñi nga xam ne ñoo di gox goxaari communauté. Euh, collectivité territoriale yi mhm. euh, ñu tegoon ko euh, diggante atum 2019 2024 ñu ngi doon décaisser 130 milliards ci 124 communes ak ville bi yoon nag 67 milliards yi mu ngi soxal ñu yokkaat ci yeneen yeneen dëkk yeneen gox-goxaan mu nekk 601 collectivités territoriales ne en 6 ans def nañu daanaka jéego yu bëre ci transfert compétence wala sax euh, nu ñuy def ba euh, maire yi euh, gën a wu ci lu nga xamante ni ñoo la yore seen gox-goxaan loolu nag banque mondiale moom moo ko def ngir collectivité territoriale collectivité locale yi mm-hmm. ñu mën a suqaliku voilà ci lu ñuy yoree seen seen mairie am na solo Pape loolu am am solo la ñu jaajëfal bu baax a baax alors Babacar Diop tas les instances de son parti. waaw euh, ñu ngi jëm ci ay euh, pas mba xam euh, dafay puiser aussi défaite bu mu amoon si ba fay défaite ànd demul sax élection présidentielle ba bay ba ñuy wax woo ko défaite je pense que boobu mërmeelu sax lu tudd parce que demul si élection yi donc boo demul si élection yi ut nga parrainage mais amuloo <laughs> et puis partem dese def ancrage mhm. nekk na maire mais ñëpp xam nañ nekkul Euh, parti politique euh, mooy FDS Guelwaar si la nekkee maire yooyu Askan Wi la bokkaloo moo tax mu nekk maire mu paree génn. Mhm. fii nii mu ne dafay dafa dissoudre instance si tegaat yeneen instance je ne pense pas que même tegaat yeneen instance sox dina changer lu bëri si lu nekkoon parti politique am bon je ne pense pas parce que euh, ancrage si plan national. si mhm. wàllu politique. Mhm. des na. Euh, pour man par exemple genre profilu Babacar Diop. nga xamante ne dañu affilié wu au parti de gauche idéologie gauche en si ñoo ñoo ñoo il fait Babacar Diop il fait partie des rares hommes politique Sénégal mhm. boo xamante ni dañuy def politique à travers l'idéologie comme mhm. avant euh, dans les années 70 80 ni ñu ko doon defee loolu presque gars yi euh, ils sont pragmatiques aujourd'hui dañuy xool sensibilité politique bi fu mu baaxee rek wala fu mu euh, fu mu neexee rek ñu dem foofu mhm. moom bon am na idéologie c'est pas pour rien que muy rappeler monsieur Anta Diop Mamadou Dia ñi nga xamante ne ay gauchistes pur et dur lañ Euh, mu affilié wu foofu loolu pour man limite la aujourd'hui ci politique parce que aujourd'hui Sénégal loolu amu fi clivage yooyu yëpp dafa sute dafa sute euh, gars yi pragmatisme la ñuy la ñuy demee bu mhm. fekkee nag da nga ne da ngay euh, da tas say instance parti defaraat yeneen kuréel yu bees boo nga rallié wu si benn parti politique boo xam ne dafa mag et puis ngeen ngeen ànd posé pourquoi pas être député pourquoi pas être ministre pour man politique Sénégal loolu bu fekkee homme politique nga loolu moo la mën a relever. Mhm. mais bu fekkee ne da nga yor benn parti politique euh, bu ndaw. que mhm. nga nekk sa parti politique loolu boo dina difficile trop nga hissé wu. Mhm. Euh, sur le plan sur le plan national pour man loolu moom moo ko gën a param dem si beneen parti politique wala wa ila bon peut-être dernier mu dem euh, mu nekk député wala ministre. loolu mën na yokk sa sa aura ba nga xamante ni après mm-hmm. si tu veux euh, postuler pour yeneen euh, échéance électorale di nga ci di nga ci mun a am dara quant à dissoudre bon li nga xamante moom mooy instance nag boo je vois pas la je vois pas je vois pas la la pertinence quoi Kajoor bon moi j'estime que à toute chose moom bu fekkee dem na ba gis ne dafa war a taxawaat mm-hmm. xoolaat nu mu ban direction lay jël mm-hmm. empêché na ko def lu bëri parce que euh, tant que amuloo reconnaissance bi war mënuloo jouir euh, pleinement euh, li nga xam ne moom mooy ses droits en tant que parti politique maintenant s'il décide euh, de on attend de voir mm -hmm. tout simplement je je serai pas long on attend de voir yan direction lay am ak fan la bëgg a yóbbu li nga xam ne moom mooy parti mais euh, comme li m lim li ko kiy wax ça reste l'un des politiques en fait correct mm-hmm. politiquement parlant c'est des gens yoo xam ne am nañu crédibilité en fait c'est mhm. des gens yoo xam ne am na loo xam ne moom moom la ñu gëm di ko di ko di ko incarner nga nga ànd ak ñoom nga bañ a ànd ak ñoom mhm. loolu la ñu gëm mhm. et je pense qu'on en besoin on na fi ay gëm-gëm yooyu fooratul ci politique bi de <laughs> Amadou je pense que ci la ñuy je pense que di euh, ci ci je pense la ñuy dem parce que rupture bi ñu bi ñu nekk nii je pense que dina apporter beneen euh, élan ci wàllum politique parce que gis nañu vraiment que actuellement ñoom élan bi nga xam ne moom moo leen andi li nga xam ne moom la ñu prôné moom moo leen andi fii au pouvoir donc je pense que actuellement donc langum politique sénégalais bi dina changé bu baax a baax a baax donc on aura besoin de ces personnes là yoo xam dañuy identifié wu ci idéologie ci doctrine vraiment parce que politique bi nga xam ne Sénégal moom la soxla actuellement je pense que c'est diamétralement opposé donc des personnes comme FDS Guelwaar boobu noonu mën nañ ko mën nañ ko def kii xam ne vraiment mën nañu am espoir ci ci moom parce que je pense que aussi le fait mu dissoudre aussi les instances de son de son parti je pense que loolu aussi vraiment acte bu acte bu fort la dafay wane tout simplement moom ragalul donc mën na à tout moment vraiment revoir mooy élection présidentielle même bu fekkee jàllul donc il faudra évoluer xool lan moo baax xool lan moo xool lan moo baaxul bu fekkee dissoudre moom moo moom moo imposé wu mu dissoudre donc mhm. pour vraiment mieux répartir en l'avant donc je pense que mën nañu am espoir bu baax a sur une personne comme comme euh, mhm. reculer pour mieux sauter loolu mhm. loolu am na solo tax xoolaat sa taxawaay Euh, def taxaw seetlu fan moo dox ak fan moo doxul mhm. mais loolu dafa nekk lu am solo mhm. euh, mais juste que léegi politiciens yi dañuy téppi téppi rek <laughs> di dem topp actualité politique bi di fàtte sax li nga xamante ni mhm. euh, moo di seen parti ci ban tolluwaay la nekk est-ce que ce que Ousmane Sonko dina def le premier ministre dina def sa déclaration de politique générale. yaa ngi koy wax. mu ngi sur les langues on se pose. Mais des il est, questions mais il est obligé mu def ko parce que bon si c'est ça le le cours normal des choses que premier ministre nga def déclaration politique générale su fekkee ne dañ la. dañu la dañu la dañu la fal. Mhm. Hmm? parce que politique générale déclaration politique générale lu am solo parce que moom mooy tracé lu nga xamante ne foofu la euh, gouvernement bi jëm. Mhm. ñu xam réellement euh, lan lay lan la fas yéene lan la fas yéene def na ni yeboo y a des annonces et mais franchement loolu moom mooy euh, feuille de route bi nga xamante ne si la gouvernement bi di tënku. Mhm. pour mën a pour pour mën a avancer lu tax nag defagu ko bon on présume que. situation politique bi nu mu demee la parce que assemblée nationale ñoom nekkuñu fa majorité xam nga te am na ay conséquences politiques conséquences politiques yi moom mooy à la fin bu fekkee da nga def déclaration politique générale euh, nga demander question de confiance vote de confiance député yi ni la non defuñu la vote de confiance bon dañuy yëg gouvernement bi dafay démissionner donc c'est ça le risque donc est-ce que c'est le bon moment pour mu pour mu ko euh, de toute façon habituellement trois mois la par premier ministre bon loolu moom moo tax quoi mu tergiversé et puis bon amul yenn conséquences avant c'était inscrit dans sur règlement intérieur Assemblée nationale que premier ministre il fallait trois mois pour mu def déclaration politique générale mais depuis bu ñu supprimer premier ministre cette disposition là y a plus y plus ça mhm. donc mais teewul par exemple euh, ki nga xam ne moo doon Amadou Ba amul woon c'était la même situation mais amul woon loolu mais teewul si trois mois yi def na déclaration politique générale est-ce que Ousmane Sonko dafay mënuloo gagner du temps avant ñu dissoudre li nga xamante ne moom moo di assemblée nationale sinon bon mënoo dem ba année prochaine par exemple ah parce que as kii bi assemblée nationale il faut dire que balaa ñu kaa supprimer balaa ñu kaa dissoudre foog mu dem ba décembre. donc loolu c' un peu c' un peu impossible. donc pour man euh, dem assemblée nationale et puis boo xoolee sax ñoom waa Pastef seen kii yi parce que boo xoolee waa Benno Bokk Yaakaar waa Yewwi Wi disloqué wu nañu donc Pastef euh, je sais pas 27 députés la ñu am quelque chose comme ça donc euh, bon en tout cas daal boo bëggee dégg-dégg liwuñu fooruñu fa fooru fooruñu biir assemblée te loolu te risque la si premier ministre nga def déclaration politique euh, politique euh, générale après nga def euh, comment dire vote de confiance demander vote de confiance question de confiance su fekkee accordé wuñu la ko donc voilà tu es obligé que gouvernement bi démissionner peut-être loolu moom moo tax mais bon aussi tamit bon peut-être aussi il se prépare voilà pour pour de toute façon bon temps bi ni avec toutes ces polémiques là Euh, nekkul en sa nekkul en sa faveur mais am na député yoo xam ne nee nañu bon ñoom ñu ngi koy euh, ñu ngi koy woo mu ñëw biir assemblée nationale daal mais pour bon foofu laay jeexalee lu nga xamante ne moo am solo pour l'instant ni daal parce que 3 juin lañ ko faloon 3 ju 3 moom mooy 3 mois pile mënatul nekk parce que bon avant il fallait il fallait écrire à l'assemblée nationale quelque chose comme ça te loolu foo ko délai nekk ay jours 10 jours quelque moi j'estime que quoi qu'il en soit. Mhm. dem fa ak mu ñàkk fa évidemment mais que ce soit le pouvoir comme l'opposition bi nekk assemblée nationale ñun ñu mettre l'intérêt des sénégalais mhm. devant parce que tey vraiment dañu sonn ci politique bi ak les décisions politiques ak tout ce qui va avec mhm. donc on essaie de voir de part et d'autre noonu la ñu mën a def ba faire avancer le pays là on a assez parlé politique tout c'est vrai on a assez parlé de de politique je pense que l'Assemblée nationale dafay représenter tout simplement li nga xam ne moom la population ce sont les représentants du peuple te ñi nga xam ne ñoo fi ils sont légitimes d'après le peuple tey boo gisee élection yi nga xam ne moom la ñu def gagné nañ ko premier premier tour avec donc loolu dafay war tout simplement ils sont légitimes donc déclaration de politique générale bi Ousmane ñu xam ne tout simplement que ñoom ce sont les représentants du peuple et que la population tout simplement le peuple est derrière li nga xam ne moom mooy le duo Diomaye Diomaye Sonko tout simplement maintenant nag le fait que Ousmane Sonko aussi war na ko mën a war na mën def de telle sorte que mu def mu gaawal ko bañ leen nekk di leen ko xatal waaw waaw moom tamit war na ko war na ko a jox cër da nga may jox cër ma jox la cër ma jox la cër moom tamit war na gaawal liggéey bi parce que je pense que aussi déclaration de politique générale aussi on attend on attend cela donc mu ñëw au niveau de l'Assemblée nationale aussi def déclaration de politique générale les Sénégalais attendent cela donc na baral lool lañ koy xaaree donc moo gën Sénégal def ay meeting ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Sénégal doy na waar nag Ousseynou fi mu ne nii boo waree dem balaa ngaa egg ñu commencé di wax. te àggagoo. on l'attend sur ces on l'attend sur ces points là le président euh, le le premier ministre on l'attend vraiment sur ces points là c'est-à-dire mu ñëw déclaration de politique générale vraiment. décliner décliner sa politique waaw wane les grands axes les Sénégalais attendent cela moo gën génn di di di yuuxoo fii di bu noppee rek day nelaw. <laughs> mais ce que c'est le bon moment. c'est ça la question. c'est ce que c'est le bon moment. loolu mooy wax ci. est-ce que c'était le bon moment pour sortir. comme euh. et redresser les magistrats et la presse et tout le monde. Ah. non je vous dis que y a des euh, je sais y a des euh, euh en fait affaire bi demewul noonu en leur faveur quoi. par exemple mhm, ñuy mhm. wax ci affaire prix le meunier ñu ngi casse réduction mhm. kii il y a beaucoup de polémique quoi. donc peut-être que il faut attendre que loolu yëpp. mu mu calmer wu un peu.